radiallahu anhu Cheikh El Hadj euh, li ma mën a wax ci moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yërmande yàlla moo ko sàkku ngir jàmm ñi noonu laay waxee ni Cheikh El yàlla moo ko sàkku ngir réewum senegal jëmm ju tedd jooju nga xam ni bi mu gën a àddina 1904 ba 1997 93 ans yi mu dund moom Cheikh El Hadj Abdou radiallahu anhu perkaal bu weex boobu mu soloon moom El Abdou amul benn gàkk-gàkk 57 25 mars gi mu yoroon xilaafa Cheikh wuutu Serigne Babacar Sy wuutu El Hadj Mansour wuutu baayam Seydi El Hadj 25 mars 57 wala 28 mars 57 la la El Hadj Mansour dem ba 14 septembre 97.

mais jaamu yàlla bu yàlla baaxal ndax yàlla mooy yore mbaax di ko def ci ay jaamam moom bokkoon na ci jaam yooyu la mu nekkoon koo xam ni yitteem yépp moo doon jaam yàlla yi nu ñuy def ba ànd ñuy def ba booloo ñuy def ba bëggante ni ñuy def ba soppante daan nga dégg waxam jooju mu daan wax ni bu ñu nekkee ci géej te nekk ci gaal ak bagage yi bu kenn ñaan bagage yi mucc waaye nañu ñaan gaal gi mucc bu gaal gi muccee rek bagage yeeg ñun ñëpp ñu mucc kooku moo doon Cheikh El Hadj Aziz Dabakh. Cheikh El Hadj Abdou anhu imam Shafii dafa waxoon ni borom xam-xam yi jëfandikoo seen xam-xam bu ñu nekkul waliyu yàlla amul waliyu in lam yakun al ulamaau amilina awliya allahi mu ni fa laysa lillahi waliyun waaye Cheikh El Hadj Abdou anhu la mag ñi léeboon léebu mooy. man kat mi ma mel mi la wara meuna mel ñu laaj lutax mu ni ndax ñi ma meñña tax kuy sa baye sidil Hadji malik nga xol Serigne babakar si mo netali ndax xam nga lim ko xawa magge xawna xaw na takku tuuti ndax Serigne babakar mi ngi gënee 1885 Cheikh El Hadji Abdou adina 1904 way Serigne babakar neena biku sama bayi di wax li may bëgg wax boobu ma ngi dugg si neena sidil Hadji malik lewuko lam ko wax moy nan ko ya uddati yow mi nga xam yaay sama xaroowaay yaay sama défense fi shiddati ci samay tartar ne ko in lam bo ne ko yow abdu anta yow fama anakan ta bobu alaaj njaga bi ko seydil xaaji malik bayam di wax loolu alaaji abdu min ko min ko lire le man ko ma nga am at lay toll wala at gen wal wàll ndax sëriñ babacar moo nettali li nan ko bayam nan ko yaa saaxibal fi'al asam yow borom jëf ju rafet gi yow borom jëf ju rafet gi كل نتلي دندم نتلي إسوارم كيم تانك يمو ديكل لك الحاج عبدو ندخ مباحك الحاج سيد الحاج مالي نيكو توبا تخي لما نيل نكا خمني باتا فنان نبيكم تيين مسردن كو اجي دنگن عن الوطن ولس غوخ بو منا جوغي جاكار لوك سما دوم جي نينا كوكو افير مباحنا rawati nañu ko sopp ci seen biiri xol alaaj njaga cheikh alhaj abdou nak moy jëm ji nga xamni jox réew mu Sénégal tegal leen loo xam ni ba keroog yàlla yi wëlbëftu bi kenn du ko fàtte bul fàtte réew mi saa yu ñu jaaxlee réew mi saa yu bëggee tàkk yàlla bu mu tàkk dam waxin la réew mi saa yu coow amee assemblée nationale saa yu coow saa yu fa coow amee saa yu élection jub saa yu problème jub see amul kenn ku noo xalaat di ko fàttaliku jël ay bandam ak i kasetam di ko di ko tegal jaam ñi mooy Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh télé boo romb rajo boo jàpp site internet boo dugg yaa ngay gis image am mooy fi li ñu war a dund ay téeméeri téeméeri at ci sunu kanam Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh jox nañu solution kon kooku nag damay wax ni yërmande yàlla moo ko sàkkul waa Sénégal yal na yàlla yokk leeram laaj jaga Fall dimension foo ko natt weesu na ko mas ngeen dégg ba tàyyi wala ngeen dégg ñu nettali leen ni mas na wax ni yàlla di waxanteeg boromam naan ko su fekkee ni safara soo ma ca dugalee sama jëmm ji mën na ko fees man rek ma nekk fa ñi ci des ñu nga bàyyi leen nga ñu dem àjjana suñu borom yàlla na nga ko def kooku moo doon seen maam Cheikh El Hadj Aziz mu def fi quarante ans zéro faute comme ni ko xale yi waxee. li yàlla def nag mooy yàlla boo ko nekkalee ba mu wóor ko ni li ngay woote ci yow dëgg la mu jël xolu nit ñi dugal la ci biir ñu bëgg la looloo tax secret boobu la yàlla la soob mu may ko li mu ko may ba pare boole ko jaamam yi nekk fii ci senegal ak un peu partout dans le monde ba tax ñu am boobu estime ci moom bi ma wóoree ne ci Sénégal la bokk bi mu ko wóoree nag péng ni ci réew mi la bokk su fekkoon ne damay doxal adduna dama naan da si citoyen la. buy doxal bu doon doxal adduna day wax citoyen citoyen réew mi la. su ma fekkee du ñu dégg sama kàddu yi sañ naa fi wax. su ko defee mu ne man bu may wax ñuy dégg buñ dul dégg man sañ naa wax rek. lii duma ma ko àndeek sama mbokk yi di doomi soxna duma ko àndeek gouvernement bi nga xam ne ñoom la yàlla teg diine réew mi ci seen. waaye googu xotti xor ma moom du ko ànd ak moroomu doomu soxna yem. doomi soxnaam yi mu àndal bokk réew mi du ko jëfanteeg gouvernement bi nga xam ne moog ñoom mu bokk réew mi. waaye ànd ak yooyu yëpp nag. waaye na ànd ak yooyu yëpp nag. du ma def masla boo xam ne bii daf may jural ak maasale abdu daal du def masla bu koy jural maasale ñu maasale ko waaye sañ naa nag lu ma gis te réew mi soxla ko ma defee nit suñ ko defee mu baax ma wax den ko waaye sañ na nag lépp lu mu gis ne réew mi soxla nañ ko buñ leen ko defalee mu baax sañ naa ànd ak ñu ko bëgg ñu bokk ko tawat Sénégal unanimité xam nañu ndax man intérêt personnel lay doxal wala public Senegal gep gapu, warngal kep Senegal gep xam nañ moom ya mooy ay yengu yengu moy lum jëf ci posam wala lu ñëpp bok bitim rewit it xam nañ. bitim rewit kay xam nañ loolu. mi ngi noonu radiyallahu anhu mom Cheikh al Abdou euh maangi maangi bis pam Makhtar Kébé nu ngi koy ñaan guddu fan ak wir daf ko yoni ci président de la république kérok biñu ne bi góor gi ñaané audience ba am yónni mu yónni pam Makhtar pam Makhtar ne bi mu ñewé Abdou Diouf recevoir ko tok di ko lan la Cheikh al Hadji Abdou moom pam Makhtar lan la ko lan la ko ab ab ab président Abdou Diouf yakamti na pam Makhtar wax ko liko Cheikh al Hadji Abdou Aziz Dabakh yónni ci mom xam nga lu ko wax bi mu nuyonteeg mom jox ko nuyo gor gi jàmm santeeg mom jox ko ngeureumal gor gi ak taxawayam ko ci daf ni ko góor gi day leen rek la ma yónni góor gi nee na daraja bi la yàlla jox nga yilif réew mi nekk président de la république nee na bu mu tax ba bàyyi julli loolu bu mu tax ba nga sàggane julli juma daraja bi la yàlla jox cër bi la yàlla jox nga yilif réew mi Cheikh El Hadj nee na mu ne ko ah, mu ni ko lol lepp bu mu tax ba nga fàtte wala nga sàggane julli juma kon la ñaka cheikh alhaji abdou radiallahu anhu film yeen say nga gis ci télévision ba nga gis ci site internet bi ay image yu bon yoy bu daan am day juk taxaw amon na fi fecc bu ñu wax lambada moonte lambada nañ ko ran feccee ki reuy san tank fele ki san tank fele góor ak jigen dal di tapolo mais xolal yu bon yi nit ñi def lambadaa rek bi mu génnee al Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh dafa ñaan audience dem ba ci Abdou Diouf pour ñu arrêté loolu ci réew mi arrêté bistron yi yu bon yi ñu ci daan def moom Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu daan taxawu daara yi gis nga daara mii ñu ko delloo la delloo ginnaaw ci réew mi gis nga daara te réew mii bari na ci ñoo xam ni daara leen jox cër bi nu am daara moo leen daara moo leen dara jaal ay taalibe la ñu woon xam-xam bi ñu am daara moo leen ko jox daara leen tey jii ñooñu ñooy bokk ci lobby yi nga xam ni ñooy xeex daara te daara nag réew bu amee bu dalee rawatina réew mi di réewum Sénégal bu dalee daara doomi daara yi ñooy dem ci tudd yi doomi daara yi ñooy ngénte doomi daara yi ñooy saxoo kalimatu laa ilaha illallah doomi daara yi ñooy jàng alquranul karim doomi daara yi ñoo ne ci lu baax di defar nit ñi lubi bi taxaw ci àddina pour yàq daara pour tas daara pour saboote daara alaaji njaga maa ngi lay wax ni bu fi fekkoon cheikh alxaaji abdul cheikh alxaaji abdul aziz dabbaax radiallahu anhu dina jug taxaw ne kenn du delloo ginnaaw daara kon nag bëgg nañu ñu dimbaleñ ci daara yi. sëriñ bi ne kon bëgg nañu dimbale leen ci daara yi. man ci daara la bàyyi ko. moom mii ci daara la bàyyi ko. sama baay ci la bàyyi ko. baayam ci la bàyyi ko. ay sëriñam ci daara lañu bàyyi ko. ay sëriñam ci daara lañ bàyyi ko. te njàngum daara. te njàngum daara kat. ak njàngum matt. ak njàng taal matt di jàng. ak alluwa. yore àlluwa leer ya cay bàyyi ko leer ya cay bàyyi ko mënul bàyyi ko ci pilim mënul bàyyi ko ci pilim manul bàyyi ko ci électricité mënul bàyyi ko ci taal électricité mënul bàyyi ko ci kaye mënul bàyyi ko ci kaye ñu dimbaleen ci loolu nañ ñu dimbale ci daara yi ba noppi nag kemtala lu ngeen man ngeen dimbale ko ngeen dimbale ko ci ñaame daara yi kuy dimbale nag nga xool sëriñ ba taalibe wër looy dimbale nga dimbalee ko ko ànd ak ñu bàyyi leen la nga xam ne moom la seen maslaha laaj ca doxal seen daara ñu def ànd ak nag ñu bàyyi leen ñu liibar ñoom sëriñ saak taalibe ya la seen maslaha laaj ci ñu di ko doxalee seen daara ñu jox leen ca sañ-sañ ñu di ko def bala ñoo soppi daara nañu fi génne dorog waaye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimer daara nañ supprimer dorog bala ñoo si daara ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko ca àll ba ànd ak maladie boo xam ne bi mën na wal walle ñu arrêté leen waaye bala ñoo si permettre daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nar a alak doomu aadama yi lii day moom la wax man nee na moom day lii la wax xoolal biir réew am yoo xam ni ngi ci biir réew mi di wër di jël ay xale naan leen covid 19 bee tax jëli leen ci seen i daara yu ñuy toog di jàng alquranul karim yóbbu leen ci ay école ak yeneen yoo xam ni jàngaluñ leen alquran jàngaluñ leen école indi leen pour pour ñu dund beneen dund di leen ci daara ja ab bi la lobby boobu li leen yitteel ñor leen mooy delloo ginnaaw lislaam yàlla waxoon na ko Seydina Muhammad ne ko yéefar yi màkk li ñu seen yitte dëgg mooy rey la ah. mooy rey la buñ la mënul rey mooy génne la am na ñu taxaw li seen yitte mooy rey lislaam buñu mënul ray l'islam moy ñu ray gaay l'islam moy ñi nga xamni ño taxawal daara jamono bi nak alaaj njëkka bu fi fekkon cheikh alhaji abdul aziz dabakh radiallahu anhu dina juk taxaw nga xamni rew mi muy suñu kilifa yi kenn ko ci dudd lamu am alaaji njaga la ko may moy daara kon nu ngi ñaan cheikh alhaji abdu namu fonké won dara, daara na mu bëggee daara daan nitu daara yi namu mu daan bi. yi waaw daan jël camion duy ko ba mu fees ak ay yére di ko yóbbul taalibe yi ca daara ja yow boo dimbalul daa dimbaliwul daara joxoo dund ñe ne ca daara ja joxoo leen ceeb joxoo leen dugub joxoo leen suukar joxoo leen ay yére yow sa yitte dëgg mooy tas daara ji sa yitte dëgg mooy fay daara ji lobi boobu nag lobi la bu am ci am na ci ñoo xam ne ay doomi daara lañu ci lobi boobu la ñu bokk alaaj jega bu fi alxaaji Abdou Aziz Dabakh ne woon loolu du fi am góor gi Malick Sall. radiyallahu anhu radiyallahu anhu. ñu ne ko yaag Seydi Hadji Malick ku ci mag. ñu ne ko yaag Seydi Hadji Malick ku ci mag. mu ne man. mu ne maa ko mag. ñu ne ko moom guddul fan di. ñu ne ko moom guddul fan di. mu ne yéen a réer. mu ne yéen a réer. Hadji Malick fanam waru woon ak si fii sax. Alaaji Malick fanam bi. li mu dund ak li mu si dund yëpp. waru woon ak si fii mu ak sax. koo xam ne yàlla yóbbu na ci martaba. koo xam ne yàlla yóbbu na ci martaba. nit koo toogal. nit koo toogal. wala pàkk adduna bi yëpp. wala pàkk adduna bi yëpp. day mel ci yow ne butéel bu ñu def ndox mu sel day mel ni yow ci butéel bu weex tal yi ci ndox te dara ñuulu ci te dara ñuulu ca nga jaral lépp la ca la ca nu ñu jékki-jékki la ñu jékki-jékki la na na ci yàlla ya gis gis te dara te dara te neexul yàlla te neexul yàlla mu mu dem Cheikh gi ci fi dem Touba gis nga jóge jóge na fi ba ba tubaab bi convoqué ko naan ko looy wuti Touba ah juge daa daan fi jugee euh, dem di dem kër kër seexal islam radiallahu anhu magam ju tedd ju baax joojule daan seeti maam xalifa ñas radiallahu anhu magam yooyule daan daan fi jugee euh, daan ñëw fii ci kër sidna limamullahi almahdi daan fi jugee daan dem kër euh, ca cene ba kër maam njabootu maam Amari Ndaak daan leen seeti njabootu maam Ahmed Baru Njigéen radiallahu anhu mboolem ëttu këri diina ji fenn fu ci nekk Cheikh El Hadj Abdou daraan déplacé wu daan dem ci woyefam nga ci yiwam nga ca mbaaxam nga ca teddangaam nga daan leen seeti ndax jamono bii lobby bi nga xam ne dañu taxaw pour fay l'islam xam nga fa lañ koy njëkkee ci këru diine yi lañuy bëgg a jaxase ba noppi xoolal dañu bëgg a face à face ak këru diina yi léegi loolu dem nañu ba xam ne lii mënuñu koo am mënuñoo jaxase këru diine këru diine tubaab ci waawoon def nañ lu ne fay nañ ay nit loolu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al laa dégg mu nettali ko fay nañ ay nit ñuy dem Tiwaawoon jóge fa dem Touba pour jaxase leen parce que mënuñu fay l'islam waaye Cheikh la Hadj Abdou rôle bi mu ci daan doxee daan dem Touba nga xam ni daan seet si Abdoulahan Mbacke Serigne Fallou Mbacke ah euh, Cheikh Abdou Khader Mbacke Serigne Souaïbou ah euh, ba ci Serigne Saliou Mbacke kenn gis ngeen jotaayam ak moom nga xool Cheikh El Hadj Abdou mbaax gi newoon ci moom yiw gi newoon ci moom tedd nga gi nekkoon ci moom daan benna bennale li yàlla waxoon ni wa'tasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu ay waay rikk waay na ngeen jàpp ci buumu yàlla bi waaye bu leen tàqalikoo mukk mukk mukk waaye Cheikh El Hadj Abdou loolu nag alaaj jaga faal euh, ñàkk a tàqalikoo googu da koo dund defar mbokk googu da koo dund daan daan wax ni kuy wax ni Touba ak Tiwaawoon ñaari dawla lañu boobu dafa amoon ko fi ñëwoon daal di bind ne Touba ak Tiwaawoon ba ay ay ay la état senegal daal looloo fa am. góor gi ni kuy wax ni Touba ak Tiwaawoon ñaari dawla lañu fii dawlatil warul wallahi koo ko xamul na ngeen ko wax yéen ñi xam na noppi moo di la gën na noppi. ndax Touba ak Tiwaawoon du état ndax fadlal ali mooy ngëneelu yàlla ko mu kawe ma newul ci loxoom waaw na wax ba xottiku waaw na loo fi doon bay wax sa yitte dëgg mooy jaxase Touba ak Tiwaawoon Ñaseen jaamal nee na nag kum kum ci doon moo xam taali njabootu Cheikhul Xadim la njabootu maam Alxaji Abdoulaye Ñas la njabootu Seydina Limaamu ah, ah, kazaaka laayeen wa Njaasaan kum ci rek teralal nga xool Cheikh Alxaji Abdoulaye radiyallaahu anhu dundam boo ko jëlee boo ko jëlee euh, doo ko doo ko mën a doo ko euh, wuutaleeg dund Seydina Muhammad ci yiwam ga Dan jéggale dan jëlale mo yalla wax na sidina Muhammad Niko, li nga am lepp li la may moy da nga bax bo nekkon diko xat xol ba nga nekk diko gawa gis sa bop diko gawa mer diko gawa gaaw énervé wu kon li nga am lepp doo ko am li tax ga yëpp fàqi ko wutal si la da nga bax lolo waral gor gi di Cheikh al Hadji Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu euh, cër bi mu am ci xolu nit ñi mbaxam la ngeen nuyu suñu ñaari doom yi nga xamne dañu am cër yu ci kër gi la ndax Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu ca dundu bay Sëriñ Tuuba radiallahu taala anhuma ak mbokkam ma di di bay Mbakke Buso dañu fi yebal seen ñaari doom ba ñu ñëwee Seydi El lool fàtte na abiyaat ya waaye Cheikh Ndiaye Mabi radiallahu góor gi woo ne ko kay bindal abiyaat yii pour ma nuyoo ko sama doom yi doomu Sëriñ Abdul fi doomu sëriñ Moustapha Bachir a ngi fi at mu nekk sëriñ bi dana leen yebal ñu ngi nii ci biir mbooloo mi ñu ngi leen di jagaleen nuyoo seen kër a ngoog seen i bokk a ngoog seen lépp a ngoog mi ngi noonu ala jaga jumaa ji Cheikh El Hadj Abdou radiyallahu anhu xam nga jumaa ji Seydi El Hadj Malick bul fàtte ni euh, këyit ya euh, ñu ngi ko ko jox mille neuf mille neuf cent ndax 1897 la dem Tiwaawan alxaaj Mouhamadul Mansour mi ngi gane àddina 1900 Cheikh alxaaj Abdou gane àddina 1904 1904 boobu 1903 la la tàmbali jumaa ji mu pare 1904 bi alxaaj Abdou Aziz Dabakh gane àddina 1904 ñu teg ci 40 ans te mooy 1940 ginnaaw si alxaaj Malick bi mu demee 20 1922 40 kon nga xam ne jumaa ji defar ba rafet na defar ba dëgër na ba ko Maodo boobu tiwil moo gënoon a cher ci li ñuy defaree Maodo boobu boobu euh, jàkka ya nga naan gis mbaa jumaa yi lu baree baree bari ay sàkket la daan doon wala ay zeng mais Seydil Hadji Malick daan jël euh, laaj taalibe yi lañ daan bayee ak moom da daan bay moom Maodo daan dundee moom Seydil Hadji Malick lam ca daan am ñëw def ko ci jumaa ji ay tiwil la ci daan la ci defoon kon 1940 Cheikh la alxaaj Sëriñ Babacar Sy alxaaji Mouhamadou Mansour euh, yokkaat defaraat jumaa ja bi ñu demee euh, ba 60 68 Cheikh El Hadj Abdou radiallahu anhu moom itam fekk yor na xilaafa gi radiallahu anhu moom itam euh, defaat euh, pose première pierre ba pour taxawaat yokkaat jumaa ji defaraat jumaa ji xoolal Assane II yónni woon na ci moom buur Assane II ne ko na ko jox ndigal mu tabax jumaa ji ba mu àgg mu jox ko caabi El Hadj Abdou ne ko dëgg la Assane yàlla fay yàlla na yàlla fay la say xalaat ak sa yéen ak sa yiw waaye damaa bëgg jumaa ji. kenn ku ci ne dugal ci loxoom ndax yàlla fay la ko kon nga xam ni kii ñëpp la yéen a jàmm waaye dina noonu dem sëriñ Mansour toog am ci yéene bu rëy rëy sëriñ seex am ci yéene sëriñ Abdul Aziz Al Amin yal yàlla yokk leeram moom yéene ba mu ci amoon sëriñ Abdou ak doxalin ga ci amoon sëriñ Abdou sëriñ Abdou ak comprendre ga àddina jël turandoom ba mu jeex rek ci mbaax ga moom sëriñ Abdul Aziz Al Amin ak coono yi mu daj ci kër Seydi El Hadji Malick sëriñ Abdul Al Amin moom itam amoon taxawaay bu mag a mag a mag a mag ci jumaa ji àgg waaye mu dem mu sëriñ Abdou rakkam ju tedd ji nga xam ni boo ne ko jàkk dignité ga ak personnalité ga da ngay tiit mais boo jox joxasagum rek bëgg ko muy sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour la la si naal waxoon yonent bi ne ko man raahu badiyatan habahu waaye wa man xaalatahu maarifatan ahabahu sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour boo jaxasagum da nga koy bëgg da nga naan xanaa paa bii nu yox mooy paa allemand paa bii nu yox mooy ñàkk caaxaan nekkite mbaax gi nii la nekk ci moom serigne babacar si mohamadul mansour gisuma ko ko gëna tabé tabe serigne babacar si mohamadul mansour khalifa bi gisuma ko ko gëna bax ko ko gëna comprendre adina yiw gi na ci mom mom serigne babacar si mouhamadul mansour momi tam ak ni mu mel ci diine ji mel ko ci tariikha bi mel ko ci rasulullah yi waye mu jeex tak tak tak ci mamam cheikh sil haji malik deug serigne habib abdul aziz nena bala commencé li da wo njabot gep laaj len seen xalaat te bu ni won doxal dañuy top ci ginaawam dañuy top ñepp top ci ginaawam waye njaboot gépp la wo laaj leen seen xalaat kenn ku ne genn ci xalaat mu te commission kon nu ngi koy ñaanal yalla juma ji ag ba mu ubbi juma ji ba mu jiital nuko mom serigne babakar si mohammedul mansour khalifa général di tidiane ala jaga faal nee na léegi nag seydi aboubacar seydi aboubacar yaag say mag yi nga fi nekkal ci dëkk seydi aboubacar mansour yaag say mag yi nga nekkal ci bir tiwaawon dalee ci Serigne Mansour. dalee ko si. ak Cheikh na Tidiane donte newul ci biir dëkk bi. ak Seydi Abdoul Aziz. si. ak seen rakk yi ci seen gannaaw. maa ngi leen di ziyaara ziyaara boo xam ne mi ngi leen di ziyaara boo xam ne donte yéen la janoo yi janloo seen kanam yi فسنا موم تي خولم ني سيد الحاج مالك لا جانول ديكو زياره يال نكو كو يالا ترالال فوفو دي لن گرم تي سين تخاواي سين بابكر سين بي ني ميغي لن دي گرم تي سين تخاواي گن ني ني گيس واي تك تك يي رافتنا سين مي ني گيج نا گيس اك يين واي تك تك يي رافتنا تي ادو تي ادو نكات تك تك في ام گيسنتي نينا دي گنتي في ام گيسنتي سما سيرين كوكو ا كوكو سمو سيرين تاج الأدباء وأديب العلماء عن محرير الكبير والدهبز البصير سنو سيرين شيخي وسيدي وبياض عيني نخمني دفا جيل جيكوي بايام دفا جيل جيكوي بايام جيل جيكوي مامام فم غور كو خون موي سيدي احمد نياارو سيدي مودو دفا نيون تي موم نيكو بابا دم بنغ دينك ما مونيكو حاج مالك اوسيك ايوا الاقو ده حضرت الهي امول دوم ki yee sama doom amul xadara ba xadara ba ñëpp ay mbokk lañu bàyyi la ci moom waaye daf ne ko yow sama mbokk ca xadratu ilaahi aywa al aqu da ko baada nafsi an tataxid al xaqa wal huda ginnaaw ba ma dénki sama bopp maa ngi lay def nga jël njub ak dëgg aban wa umman nga def ko muy ndey nga def ko muy bàyyi mu dem ba ca biir xam nga lu mu ko wax daf ni ko bam ne ko alif zal juudi wat wi wujudaka waajib il wujudi yu xaalif ka charral juudi min zil juudi wal wujud xam nga fu mu daaneel daf ni ko tasir maalika dëhri ka kal maalik di nga moom sa jamono comme sama mam Seydil Hadji Malick nam ko moomee woon ci xam-xam ba mu nekkee keer jommal jommal naar yi diplôme yi sëriñ Maodo toogaalee kenn xamul nu mu toll waaye mu jël ci wooyee fam nga jikkoy baayam Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh boko fekk ak serigne Mbay Mansuur def ko magam bàyyi la ko def boko fekk ak ay rakam da ngay sax jaxle mum serigne mawdou si atalla umruhu wa baqaahu yàlla ko fa yàlla gëna bàyyi yok ay fanam way mu jël jikkoy bayam ndax bayam daf ko daf ko waxon niko euh bul wax ni alaaji malik ma jur bul wax ni sëtu Seydil Xaaji malik la Maodo na nga liggeyal yàlla na nga liggeyal Seydina Muhammad sax ci njub bu mu ne ko fa minni ilaa faqil asirti maliki waaw ne ko tukkee na ci man alxaaji abdul aziz dabaax jëm ci ki nga xamni ni mooy puukare famille bi nga xam ni famille bépp ki noo tiitaroo di ko puukare woo mooy sëriñ Maodo si alxaaji abdul aziz si yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko yàlla fayal mom neena mom ben nit la rek ben nit la rek daan na jógee gël tapé daan na jógee gël tapé la plupart chauffeur am du fanaan ci kër gi. nee na li ci ëpp xale bi ko daan mag chauffeur yi ko daan dawalal duñ fanaan ci kër gi. taxi lay jël. nee na bu fajaree taxi lay jël. léeg-léeg su demul jekko. yee léeg-léeg bu demul jekko. mu dem avenue mu dem avenue Lamine Gueye. mu dem avenue Lamine Gueye. ci zawiya maam El Hadj Malick. ci zawiya maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu. su ko defee. su ko defee. chauffeur bi. chauffeur bi. su bëggee dem. su bëggee dem. te yàkkamti. te yàkkamti. mu jël lam koy jox jox ko. mu jël lam koy jox jox ko ko. daal di woo ku mu àndal. daal di woo mu àndal. Maxtaar Maxtaar. Mamour Mamour. seet leen beneen taxi. seet leen beneen taxi. ci mujj dundam. nee ci mujj dundam. dem na zawiya ba. nee dem na zawiya ba. ak ni mu màggee. ak ni mu màggee. ni mu tuuftee. ak ni mu demee ba yaram bi jeex takk mu tuuti. lekkul. ndax lekkatul. naanatul naanatul. xelam. xelam bi xalaatam xalaatam. xolam xolam lépp lépp. diig na. diig na ci biir yàlla ci biir yàlla. mu taxaw. mu taxaw. ñu war ko téye pour mu dugg ci zawiya bi. ñu war ko téye pour mu dugg ci zawiya bi. mu julli fajar. mu julli fajar. fekk des na nag tuuti. fekk fajar gi des na tuuti. rek góor gi nodd. rek góor gi daal di nodd. ca kaw ca kaw. ñu ne kii daal Alaaji Abdou Rahim ñu la góor gi la de gu ñëpp ne góor gi la de kooku nee na kooku kenn la kenn rek la mas na mas na bind benn kilifa nee na mas na bind benn kilifa ne ko ne ko na ngay dem jumaa na ngay dem jumaa amna say nawle say natongo yu koy def. amna say nawle ak say natongo yu koy def. kam ko waxal. kam ko waxal. bu di ko yónni ci mom bu bu diko yónni ci mom amna ko papa lolou ñame ko. mu ko day loolu mom ko. ñame ñemewuma wax kilifa gi. mu ko dal li ma yónni ñame koo wax kilifa gi. am benen dom am benen dom ku am diine. ku am diine. ku taxawoon nak alhaji rawan bay ku taxawoon nak alhaji rawaan bay rahmatullahi alayhi. rahmatullahi alayhi. rawaan yal na ko yàlla dolli wér. alxaaji rawaan tam yal na ko yàlla dolli wér. mu laaj ko ko mu laaj ko ko mu ne ko mën naa dem wax ko ko mu ne ko soo may yónni may dem di ko ko wax dem daal di ko ko wax mu dem daal di ko ko wax macha allah macha allah mu ne daal dégagé na responsabilité mu ne daal moom dégagé na responsabilité li ko war daal wax def na ko cheikh alhaji abdou nag radiallahu anhu bu ñuy waxtaanee ak moom bu ñuy waxtaan ci moom fii la ñëw fanaan sëriñ babacar si waxoon na ni kër sëydi alhaji malik bu fekkee gàtt la abdul aziz mooy reswa te res nag paaka amu ci yoon alxaaji Mouhamadul Mansour mi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk sa féetu bokk Seydi Alxaaji Malick dafa jël xalimaam cas di way ala jabdu ni ko araafil xal bi xubbun maa qayaali li cheyqin murshidin mudnil kamaali alaaji Mansour ni araa gaar na fil xal bi ci sama xol ñu ko mu alaaji Mansour lu ko gaar mu ni xubbun cofeel maa qayaali cofeel yu ànd ak ay jeeñeer وعلاج منصور تفعل فوق جميع مني شيخ ينيل سرين بن سرين مني مرشد كي جبل واكون كوي واخ مني مدن الكمالي كأجي مات كأجي جاكن جمات كي خمني دفع جاكن جمات نيوخ بورم بي سبحانه وتعالى تمي الحاج عبد العزيز دباخ ني نيكو نيكو تقيين كي ما يكرغال يالا نقيين كو سيت لا زاهدين كو ددو ادون لا موم شيخ الحاج عبد مي ركام بي مبوكال ديك باي دي الحاج محمد الحبيب bàyyi sëriñ mu laay ak ak si sëriñ Sidi sëriñ Sidi Ahmed bàyyi sëriñ xalifa si alxaaj Habib dafa jël xalimaam mu mi di way magam ji lu ma la wax alaaji Mansour way na ko mm-hmm. rakkam ma ko way alaaji Habib dafa ni ci biir way wa mu ajaban ay waay kaay leen yéen kaay leen ay waay yéemu naa xam nga nja ala njaga faal loolu boo wax jékki-jékki arab yo bam ajaban rek mooy la ko yéem for na ñu ajaban yéemu naa ay waay kaay leen yéem li ma bi bidaati malikin ci dogitu alaaji malik bii wa imaamina kay sunu sëriñ ajaban bi bidaati malikin wa imaamina mu ni niama baax na alfataa ceem soragal yàlla sii man mooy ki nga xam ne xaada làq na kulla faqaari gis nga njëga faal alaaji abib nee na bépp puukare bu nit di tiitaroo di ko tiitaroo di ko pookarewoo nee na alxaaji abdul aziz baax làq na ko waaye wanewu ko benn yoon mu ni lim laa lu tax sax bu du ko làq ndax wa anta yow wali du maaliku cheikhina yaay doomu alaaji malik mooy sunu sëriñ kuy kooku mu ni zaaka moom mawdo huwa moom mawdo omdul axyaari mooy wiir waaye tànnee fi ci la alxaaji abib jël xalimam yow mi ngëpp yi yaa xaabidal arwaax yi yow mi nga xam ne yaa téye ruu yi ngëpp ko tey rey nit ñi tawwil guddalal umruhu dund ala jabdu ndax desam desam desam fii ci àdduna bi moo ëpp njëriñ ko fi mën a des wan surhu te nga dimbali ko fii sirrin ci biir wa fii ijhaari ak ci biti ba mu àggale lépp lu mu nisër ci diine ji nisër ko ci tarixa bi nisër ko ci mbokk gi moom Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh radiyallahu anhu daan na wax ni su ngeen bëggee dara ci sëriñ Babacar si jaar leen ko ci man di ngeen ko am Tamu bu fatini sering bawa kerma yang tout le risque Dan dan daan na wax ni ñi bëgg sëriñ babacar ñëpp mom cheikh alhaji abdou buñu ñu seen cofeel ci balance jël sama cofeel man abdou ñu tek ci balance sama cofeel wat leen dig wax bi amu ci won sago ni mu meloon ci serigne babacar si ay rakam ak ay magam ak ay jarbatam ak ay domam ak ay sëtam moy gor gi nga xamni ak ay taalibeem ak ay ken amul won ci mom sago góor gu tëdd googule Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh alaaj Njaga Fall Seydi El dafa wax ca Tiwaawan Baye Ngouda. Seydi El Hadji dafa wax ca Tiwaawan ak góor gu ñuy wax Baye Ngouda Mbuub. ne ko Mamadou man de dégg naa coow yi bari na lool ndax njéréer yi. ne ko moom Mamadou man de dama dégg ni njéeréer yi yàlla yebal tax na coow yu bari ci nit ñi. ndax njéeréer yi ñoo ëpp yàlla doole. mu ndax wala njéeréer yi mën nañu lekk li yàlla sàkk ba mu jeex ba yàlla amatul dara. wala njéeréer mën nañoo li lekk li yàlla sàkk ba mu jeex yàlla dootu dese dara. ñu ne déedéet déedéet déedéet njéeréer kon man tam man naa war lu lëf ci to dama koy teg ci béréb. xaaji Maalik ne kon war lu li ma leen di warlul. li ma leen kan ci yéen mo mën a jóg taxaw fii ne man ma xaaji Maalik man de dana dund ren ba kan ci yéen moo mën a jóg ne ma xaaji Malick man danaa dund ba déwén. ku ko ci def rek. kenn mënu koo warlu. danaa jóg man itam ne lay ne la yàlla dana la gàddul sa dund rek ba déwén. dund yàlla dana la gàddul sa dund ba déwén. ñu ne ko kenn mënu ko ci. ñu ne ko kenn mënu laa warlu loolu de. mu ne leen nag kon ki man te xam te am sañ-sañ te mën a def nañ ko bàyyi ak suñu bopp. kon nag ki man mën a def ko wax naa ko sànq ci benn waxtaan ma ni moo Maodo daan na wax ni maam Abdou li tax mu doy waar ci xolu nit ñi sénégalais yi lañ ko suul. xol nag jege na boroom jege goo xamante ni bi jamono bu ne yaa ngi koy yëg nga dégg ni muy battre kooku nag ku ñu fa denc kenn du la fàtte. Alaaji Ndiaga di la gërëm dem am te ñaanal la euh, sa site bu mag bii yal na ko yàlla yokk dëgëral yàlla na yàlla yëkkati ko ba mu nekk ay télévision yu mag a mag a mag waaye gërëm réew mi. Euh, ñaanal réew mi yàlla dafi jàmm mbas mi yàlla gaaw jëlee ko fi ñaanal sunu sëriñ sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour xalifa bi mu yàgg fi te wéer sëriñ Maodo si sëriñ Babacar Abdoul Aziz ak njabootu Seydil Hadj Malick yëpp ak kilifa diina yi ne ci biir réew mi ñaanal njiitu réew mi ñaanal kilifa réew mi yàlla na ñëpp am jàmm. kon ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay yéen itam ak li ngeen ci bay ci seen wàll te di ñaan suñu borom yàlla yokk ay leeram jéggal ko. ak mboolem ummat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak suñu kilifa yu bax yi nek ci bir souf yeb yal lim yàlla yeurante yexign yen itam yàlla fay len yu ci barke yonent bi maa ngi nuyu ñep di ziar ñep te di ñaan yàlla ñu amaat benen jotaay inshallah taala jere jërëjëf dara du doon seen wax lu dul kontaan nañ ci lu neex yàlla na ko def. day kontaan ndax yàlla ca la ñu bàyyi ko te ca la ñuy dellu. ndax nun yàlla yow ko ñuy ñi def loolu. yàlla ne yonent bi nag bu boobaa ba natt yi dal. danaa wax loolee. danaa sotti waa muy xéewal ak yërmande bu bàyyi ko ci man te du am benn intermédiaire jëm ci ñoom. danaa sotti waa muy xéewal ak yërmande te amul jox joxlante maa koy sotti ci seen kaw rek ba ñu ne gërëf nag sant yàlla. te itam ku bëgg ko roy te nekk ci njub royal ci ñooñu. te nag yàlla ne ku bëgg ñëw koo roy. ku nekk ci njub royal ñooñee kon nag nattu bi wàcc ci suñu kaw yal na fi fekk liimaan yu ko dékku kon nee na nattu bi wàcc ci suñu kaw yal na fi fekk ngëm gu ko dékku ba yàlla boole ñu ci ña nga xam ne humul muhtaduuna ba yàlla boole ñu ci gaañu gindeeku ñooñu tey gindee yii yëpp nay woyof ci yéen nee nattu yi rek nan ko woyofal amul solo lu moom si jaam ñi la jëm est-ce que dencul dara muy dëxëñ mu lay dabaax sa kanam Abdoul Aziz Sy Malick Abdoul Aziz Sy Malick Maodoy baar daba njaay yaay Abdoul Aziz Sy Malick daroon ñaan ay waay bay ñaanal dina weer Eh, eh. Abdoulaye Simaale Sa Abdoulaye Simaale ah, katolik ah. ñoo ko mënoon bokk jullit yi Abdoulaye Simaale ah. gàlleer ñoo ko mënoon bokk jullit yi Abdoulaye Simaale